Comme en 2024 Comme en 2024 Comme en 2024 Comme en 2024 Comme en 2024 waaye ñu may ñu tuuti ñu ngi en direct télévision ñu may ñu ñu may ñu tuuti ñu déglu président day def direct ci télévision yi ñu may ñu tuuti le président vous avez la parole. mbokki Sénégal mbokki Pikine ñu ngi leen di nuyu. leen sant ci dalal bi ngeen ñu dalal tey ci campagne électorale bii ñu ubbi ubbee ko Pikine tey nag dama bëgg ngeen déglu ma ngeen dégloo ma xel ñu waxtaanee sunu réew ma ne tey Sénégal am nañu lu ñu metti ndax réew moo xam ne kenn mënul la weddi ne ndóol sax na fi réew moo xam ne kenn mënul weddi ne jàng sooxe na fa réew moo xam ne kenn mënul natable ne ñàkk xëy sax na fa réew moo xam ne kenn mënul werante ni ñàkk kaaraange sax na fa réew moo xam ne kenn mënul werante ni da ngay feebar te doo mën a faju bu ñu demee ba Sénégal am juróom benn fukki at ak ñeent ñu dajale lu toll ci ay milliards yi jox ko ay loxo yu ko war a doxal pour li ñëpp bokk ñépp jot ci ñu dajale xaalis lépp ba toll ci lu ëpp fukki junni ak juróomi junni milliards fukk ak juróomi junni milliards ñu lépp ko ci sunu dox réew moo xam ne li ñu am ci or am ko ci petrol am ko ci gaz am ko ci phosphate lépp mënul tax ndóol jóg fi ñàkk jàng jóg fi ñàkk am xëy jóg fi ñàkk kaaraange jóg fi ñàkk wér jóg fi waaw réew moomu est-ce que réew mu tegu ci yoon la walla déet kon nag bu ñu naxul sunu bopp ñu xam ne tey senegaal xel yi dalul de walla yéen seen xel dafa dal ku xelam dal na génn tànt bi dem yoonam est seen xol féex na wax leen ma rekk ma ne est-ce que seen poos fees na boo nekkee ci réew mu am alal ji mu am te sa xel dalul sa xol féexul sa poos feesul waaw yow réew moomu ban njëriñ la la amal ma ne yéen ñi fi toog tey kan moo fi yeewu fanaanee dépasse ñaari fan wala ñett yëkkati loxo sa loxo amul kan moo fi dànk ceeb te amoo ci bor wax leen ma kon nag réew moo xam ne da ngay leb pour añ leb pour reer leb pour ndékki dégg naa sax ndékki bàyyi nañ ko ak reer waaw da ngay leb fay loyer da ngay leb fay luyaas leb sa sa jàngu doom leb sa wirgu yaram leb sa paasu Touba leb sa paasu Tiwaawan lépp sa paasu Njaasaan lépp sa paasu Yoof kon nag ñun li ñu yëkkati rek mooy loolu li ñu yëkkati mooy gis ne réew mi dañu bëgg mu naat naataange bu sax naataange bu sax nag ay nit ñu xarañte maandu ñoo koy joxe ñu nit ñu xarañ maandu bu ñu jàngul amuñu wér-gu-yaram duñu ko am loolu moo ñu yëkkati loolooy sunu programme ñu bëgg a tabax Sénégal waaye Sénégal yàqu na yàqu boo xam ne balaa nga koo tabax danga koy jagal ba pare jagal Sénégal boo ko defee ba nga xam ne lépp loo xam ne lé réew mi am na ko ci alal ñëpp mun cee jot ba pare nag nga tabax ko fexe ba jàng bi kenn du fay dërëm ci jàng ba ba ngay am ñaar fukki at ak juróom huit mille milliards lañ ciy teg juróom ñetti junni milliards la teg kenn dootul fay dërëm pour jàng doom wér gu yaram dinañ fa teg junniy milliards at mu nekk at mu nekk junniy milliards ba mot juróomi at département bu nekk ñu def fa polyclinique ñu def ay oto yoo xam ne day am hôpital ci biir muy dem ci dëkk dëkkaat yi di dem ci village yëpp ñëpp ñi nga xam ne xarañu loxo lañuy liggéey artisanat ñii di ñaw ñii di ñii di nekk cordonnier ñëpp dinañ leen defal fonds boo xam ne trois cent cinquante milliards la di leen lebal ñuy jënd machine di leen lebal ñuy liggéey parce que fii ay nit ñu di ñoo fi nekk ay nit ñu mën a liggéey surtout nag jigéen ñi jigéen ñi dinañu fexe ba seen entreprise yi lépp lu état di séddale ci liggéey ñu jël ci quinze pour cent maanaam bu dee téeméer la ñu jël fukki yeeg ak juróom jox leen ko ñu liggéey mën a am lu ñuy soxandiku jeunes yaa ngi dem ci géej gi dinañu fexe ba kenn dootul dem ci géej gi ci anam yi ñu demee lépp képp ku dugalati sa xaalis Sénégal di fi am marché di nga joxe ay visa pour xale yi dem dinañ leen defal ay promotion ñu def transformation industrielle xale yi mën a am liggéey kon nag réew mi dama bëgg ngeen xam ne politique du caaxaan réew mi dañ ko sàggane li ci gën a bon nag mooy luubal bi ñuy def jël alalu réew mi luubal ko jox ko sa njaboot wala nga jël ko rawale ko bitim réew bàyyi toomu réew mi amuñu lu ñu dundee loolu moo tax ñu dugg ci politique kon nag élection yi ñu jëm élection yi ñu jëm tànn bi barewul de du élection boo xam ne danga naan man kii laa tippoo wala kële moo tippoo da ngeen di xool kan moo am jaar-jaar bu war a tax mu mun a defar réew mi ubbi tey liggéey tey waa ma ne kooku kan la mane bu dee du man ngeen wax ma ko ma bàyyi bu dee du man ngeen wax ma ko ma reeri tëddi bu dee man la nag xam nga lan laa bëggu coow li jeex na mane ne kamaa yegg si na ñi doon lappi-lappi yëpp dañuy daw ñëpp xaar déglu leen ma mane ne kamaa yegg si na ñëpp ay xaar dama ne dama bëgg avant midi di jot man waxuma ay deuxième tour de premier tour laa wax avant midi ñu jël victoire bi bu ko defee nag bu ko defee nag ma ne bu ko defee nag xol yi mën a féex xol bu féex mooy nga yeewu mu wóor na sa doom dina jàng kenn du kenn du ko dax école pour fourniture nga yeewu mu wóor la boo feebaree faju mu wóor la boo génnee kenn du la agressé mu wóor la boo jàngee ba pare dinga am stage boo amee stage ba pare di nga am liggéey di nga mun a dimbale sa waajur xel yu feex xel xel bu dal mooy dina di nga mun a jaamu yàlla si jàmm parce que sa xel dara du ci nekk lu dul xam nga ne yow sa àdduna état bi lim ci war a def def na ko li ci des yow nga góor góorgóorlu sa bopp sa xol nag li koy féexal mooy mu wóor na ne lu jógewul sa borom loo xam ne nattu la ah du yàq sa àdduna doo dem insécurité doo ko fekk ñu lay agressé nga ñëw dugg oto boo xam ne façon accident yu nekk fi am Sénégal façon reyante bu nekk sa xel du dal nga dugg sa kër mu wóor dañ koy mun nga ñëw ñu agressé la nga gis nga am sa bétail ñëw am sa jur ñu ñëw nangu ko sa loxo loolu yëpp sa xel mënul dal poos bu fees nag boo liggéeyee ngay am poos bu fees waaye fii waxuma la poos bu fees sa poos day bënn loo am ci dund la yem dangay ngay gis ku nokk àdduna liggéey ba retraité ci chômage koo xam ne mosoo liggéey ci àdduna loolu mos nga koo gis moo tax ñu taxawal benn fonds de solidarité bu ñuy wax bel képp ku juddu Sénégal yaroo fi nekk sénégalais boo amee 17 ans xam nga dañ lay tere jàng ba 25 ans à partir de 17 ans dafa am benn bourse bu ñu lay jox ba nga am 25 ans nga war a commencer liggéey 25 ans ñaar fukki at ak juróom ba fanweeri at ak juróom lan ngay soxla am kër am jaboot am oto am lépp dañ la koy garantie. di ko dagg ci sa salaire ba ba muy jeex boo demee ba am 35 ans nag yaa ngi sa activité yaa ngi xalaat ëllëg sa retraite soo buggee investir ñu ñoo lay garanti ci banque bi ci xaalis bi nga fa am soo buggee def tool nga def sa tool boo buggee def eh, ab eh, liggéey bâtiment ngay loué boo buggee jaay sa commerce nga def ko boo buggee ubbi boutique nga ubbi sa boutique boo buggee dem conteneur nga dem sa conteneur parce que fi ñuy jëlee xaalis bi mooy lii ñëpp moom muy pétrole bi di gaz bi di lépp loo xam ne lii Sénégal la jóge ñu jël ko nag dajale ko séddale ko waa Sénégal waa laaj leen ma ñi ñi am 64 ans nag retraité ah lan lañ leen di jégleel ñooñu cent cinquante mille par mois fanweeri junni dootoo gis retraité buy wër ci bureau yi di wut dépense boo liggéeyee la sa réew ba am juróom benn fukki at ba retraité yaa xëy war nañ laa mun a delloo njukkal waaye retraité ba pare di uti dépense loolu Sénégal rek la am kon nag bu leen kenn nax Sénégal am na alal Sénégal am na ay nit ñu am xam-xam Sénégal am na ay nit ñu jub ñu ko mun a defar xam nañu niñ koy defaree defar nañ ko fii defaral ko ay nit bitim réew li xew nag tey mooy ñun dañu mos a sàggan ne politique bi dañ koy bàyyi politiciens yi ñu def lu leen neex su kii ñëwee def lu ko neex bàyyi kële mu ñëw mu def lu ko neex léegi nag loolu moo jeex surtout yéen jeunesse yi bu leen nangooti di jël seen pouvoir di ko jox politicien parce que politicien mënul defar réew mosu leen gis politicien bu defar réew ñoom seen bopp lañuy ñuy defar ñun looloo tax nag ñu bàyyi lépp lu ñu yore woon bàyyi sunu liggéey bàyyi lépp ñëw taxaw pour xeexal Sénégal parce que Sénégal moo tax ñu am lii ñu am Sénégal moo ñu jàngal ñun sunu papa mosul fay jàng kon nag Sénégal fii mu toll dañoo war a nangu réew mi ci ñi koy yàq élection yi nag moom mooy occasion bi soo gisee ñuy kutu kutu yëpp bañ a organiser élection yi loolu la woon parce que xam nañu ne c'est fini waaw kamaa ñëw na de c'est fini léppay leer dinañu nangu réew mi nangu alalu réew mi teg ko ci loxo yi jub liggéey ko ba waa réew mi yëpp jot si wasalaam jërëjëf merci beaucoup Kama, jusqu'à la mort.